kon daal lu aju ci digal leen lu baax ak aay leen lu bon ak teg leen ci yoonu yàlla moom te nga ci jëflante ñoom mel ne mën nañ caa def ak dindi te bañ na rek yàlla lu ko soob def bu ko neexoon nit ñi jub ko neexu déedéet loolu doo ko seet nga leen di xooli ba tub zahir mel am nañ coobare yi def ak baña a def ak jubal ak dëngal boobaa nag ku def lu baax nga kañ ko ku def lu bon nga aaye ko ko taxaw temm ci mu bàyyi lu bon la. benn ngoog boo ñu war a ci bëtub sharia muy bëtub zahir ba ci des nag mooy bu la defalee lu baax bu la defalee lu baax doone rek yàlla ma ko defal dafa jaar ci ñoom dong da ngay sant yàlla ba noppi sant leen boole ci ñoom ñu ko jaarale ci ñoom. sante yàlla mi nga xam ne ca dëgg-dëgg moo la defal lu rafet loolee santaale jaamam ñooñee nga xam ne ci ñoom la ko jaarale kon doole nga shariha ak xaqiqa fi nga war a gën a farloo lool nag ci diglee ko aaye mooy sa soxna ak sa doom ak sa njaboot gi nga xam ne yaa leen yilif moom bu ñu defee lu ñu war a def mbaa ñu gàttalu ci ñàkk a def luñ ñu war a def moom war nga caa taxaw temm ba yàlla xam ne yow mi def nga la nga mën lépp looy day fekk buñ xoolee shariha ñëpp maase ci ne lu araam la mbaa boog mbaa boog bu amee wax dagan nga itam ñu wax ju doyadee doyadi dañuy sart itam loole ngay aaye kooku di ko fësal waaye bëgguñu ngay gëstu secret nit ñi bëgg xam ba xam ñi ngi def lu aayam defuñu ko lépp lu nit di làq daal moo xam ne koy làq ci loxoom wala ci këram ba feneen fësal ko rek dañ caa war a maandu seetaan ko saa ko fësalee nag moom ñu taxaw temb ci def ca la ja war booy diglee ko aay itam na ba am ca yéene ju sel yàlla rek tax bul ca bëgg aw tur dara ndax boo jubloo jëm yàlla kese yàlla lay dimbale fay la boole ca waaye nag boo jubloo aw tur ja rek yalla wacc la nga jële ca toroxte bu la wóoree nag ne mbir mi boo ci waxee ci digle ba aaye ba nga jéem caa jëf sabakan mën na caa des ba mën nga caa jële ngaañ lu réy réy kon sa jaan wàcc na waaye nag bu fekkee ne mën nga caa wax te waxoo ca mën caa jëf te jëfoo ca rek moom da ngay daal dugg ci tëkku bu rëy bi nga xamee ne moom la addis yi tëkkoo ci googu wàll. nee nañu suñu borom daa waxan menn malaaka ne ko dëkk sàngam jëllër bi ko la féete woon kaw féete suuf malaaka mu ne ko a ah, sa jaam sàngam day ma nga fa te mosulaa mooy lu tuuti tuuti mu ne ko. xam naa ko waaye defal li ma la wax rek ndax gis na la def ci lu jaaduwut te kanamam sax mosu caa wane ne lii na ma li tax nag lu ay moom mat di aaye ak fexe mu jóg fu mooy ki koy romb sax te du ko def su koy romb ko rombaat day mujj ci xolom rek du ci yëgati sax di lii romb lu aay la dem naa dem sax ba lu bon li boo ko dee dégg lu bëree baree bëri day mujj sax mel ne na ko daa bonloo ci sa xol muy diis du ca àggatee. am na waa ju baax joo xam ne nañu daa romb ca marché ba gis bidaa boo xam ne daal naqarlu gam ko naqarlu ci xolam te mënu ci dara daa tax mu saw deret deret ju xong lool lool lool. ci ëllëg sa mu rombaat fa gisaat la mu gisoon ba tey sax jaxital na ci moom ba mu génnewaat deret waaye nag deret ñaareel ji xongewul ne ju jëkk mu dellu fa rombaat yoonu ñetteel gisaat la mu gisoon mu tur ndox nag lu mel ne rek li baaxoo génn ci nit muy tur ndoxum kese rek maanaam daray deret génnut li baaxoo génn ci solukaay rek moo génn ci moom nga xam ne kon yett yoone gis nga ni ñu wootee te lu bon li lenn lee jëm ji ko gisit kenn kee lee mu ne maxa iqaamatil xuduudi ànd ak taxawal gétan ya gétan mooy yoon daa am yum aaya ba noppi tekki ne ku ko def nañu la kes nangam mel ne naan sàngara wala mu njaaloo wala mu sàcc da ci yoon tege moo tudd gétan daa am yoo xam ne nag moom àttekat bi ci boppam mooy seet la ca jaadu rek mu wax ko ñu def ko ñu koy tuuti ak yar yar mën naa dem sax ba gën a métti gétan waaye àttekat baa koy tolloole ñu topp ko ca loolu nag moom jamono ya sariya ay dox lañu ko mënoon nga xam ne ku yàlla teg ci kaw suuf nga jiite jaam nga war a xeeti gétan yooyu ak xeeti yar yoon yooyu na ko yoon tërale doo ci yërëm kenn wala taaxudukum bihimaa rafatun fi diinillah dane woon lu yàlla digle mbaa lu yàlla aaye na nga ca xoole nit ñi ci bëtu shariha maanaam bëtu zahir jàpp ne mën nañ caa sabablu bul rek lépp yàlla bu dolli woon ci itam bu defalee lu baax doon rek yàlla ma ko defal bañ leen a sant na leen sant ndax ci ñoom la yàlla jaarale loolee mula defal bu la yàlla defalee lu baax jaam ba ko jaarale ci moom rek na ko sant te ñaanal ko te tagg ko ndax suñ boroom ci boppam daa bëgg ku ko sant bëgg ko tagg kon nag jambam jaarale loola itam ba agsi ci yow bëgg nañ nga sant ko te tagg ko ku sant lu néew bu sant lu bari te ku sant nit ñi itam santoo yàlla ndax yàlla li muy defal ab jaamam di ci ëpp rek ci nit ñi lay jaare ba agsi ci moom ki dàq sant nit ñi moo dàq sant yàlla lekk sax bu la ko mbokkum jullit joxe boo lekkee ba noppi bëgg nañ nga ñaanal ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo ki saxaabaam dañoo mas a xéwlu fa ku ñu wax abul haytam yonent bi ne leen ay ca fay leen abul haytam ñu ko luñ koy fayee mune ne xanaa ñaan benn moom ci boppam moo tàmbalee ñaan saxaaba yi di wax amin amin ba saxaaba yi ñoo doon ñaan moom ci boppam muy wax amin ba ci mooy yi nga xam ni moom lañu ñuy mooy sax soo ca defee la nga man te taxul ñu bàyyi itam na nga delluwaat ci yàlla xam ne kat jëruñoo jëppi ndax kenn ku ne la yàlla dogaloon ci moom démb rek bu ñëwee fii mooy feeñ ci moom xeetu lu bon lu nu bari bari ak ñakoy def nu bari bari dutee rek na nga cey waslu saq ci dindi la nga man ak digle ka ay la nga man bu tax nak nga jéppi nit ñi bu tax itam nga ñaaw njort ci ñoom ci seenu muj ndax yalla mom da ko soob rek mu digle top gi aaye moy gi top gi du ko jariñ dara moy gi du ko wàññi dara ak mujj fekk moo am solo te ak mujj li ci ëpp des koy umpale ba àgg ja kon nag nit ñi fi nga leen di xoole batub xaqiqa maanaam jàpp ne suñu borom rek moo dagal loola ñoom defuñ ca dara lépp yàlla mooy bu nit ñi defee loo xam ne naqari na la ci sa wàllu bakkan rek waaye xotti wuñ ormay yàlla foofu da ngay jàpp ne moom ca dëgg-dëgg yàllaa def loola nga bañ a yedd nit ñi nangu seen ngànt xam ne yàllaa ne woon da ngeen tase jamono ñu def la nangam loolu rek moo waral ñu def la loolee waaye ñoom amuñu sañ-sañu def mbaa dindi kon foofu nag nga leen di xoolee bëtub xaqiqa mooy batu yàllaa def waaye mbindee fi ñoom defuñu lu yàgg-yàgg nag nee na buñ la mooyee mooy koo xam ne weesuwul rek sa mba mbaa nga jëm ci mbir mel ne dañoo dox sa digganteeg moom mbaa ñu lay lor ci wax mbaa jëf loolu lépp mu tax nga jàppe leen ko na la wóor ne kat nit ñi yàlla leen di wëlbati ñi wëlbati ko waaye bu ne rek ñoy yëngal seen bop ñoy wëlbati seen bop na la wóor ne soo bëggee mbir ba nga wax jëm ci jëm ci taxaw tax sa digënté ak mom melni mom dala ko añaané melni mo té nga ag ja mba bo gisé jëmm fab lor jëme ci yow bu agsi loolu lépp na la ci dëgg-dëgg yàlla daa jaaree ci jëmm joojee rek waaye yàlla ci boppam mooy almaanixo moo di ak daar waaye bi moom mënut sañut bu melee ne dañu laa loro mbaa bu mel ne dañoo dox sa digganteeg la nga jëmoon ba tax nga jàppe leen loola rek kon day mel ne sa tawxiid maanaam si wéetalul yàlla rek moola la faay ndax yow naka jekk gëmoon nga ne ci dëgg-dëgg yàlla rek mooy def ak dindi. bul fàtte itam bo amee aajo jaare ko ci nit te fajuwut bul fàtte ne lépp yàlla du kooka bu aajo ja fajoo nga sant kooka rek gannaaw ba nga sante yàlla waaye su ajo ja fajuwut bul ko xarab mukk mukk xamal ne lépp yàlla yow ci sa bopp da ngay def lépp loo man ci bañ a lor kenn ci wax bañ a lor kenn ci jëf ndax hadis ba dane ab julit ca dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne mooy koo xam ne nit ñi mucc nañ ci lori loxoom mucc ci lori làmmiñam al muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisaanihi kon fexeel ba bul lor kenn kenn ci sa tey boo juumee ba def ko itam danga ko jéggalu ba mu jéggal la ñoom nag buñ la re dañ la waxoon rek bu leen yedd na leen baal sax bul fayantoo ndax nee nañu nit mën na laa tooñ nga di ko ñaan yàlla di ko rëbboo ko moolu ba mujj far loolee nga ko def ëpp moom lam la defoon te it nee nañu ku tooñ lu mu rëy rëy bu nangoo moo tooñ rek ne baal ma dañoo bëgg nga jégal ko moo xam baal ma jëm wax lu wér la ci moom wala du lu ci moom waaye daal léegi xas na nangu ne moo tooñ te nee na baal ma rek dañoo taamu nga baal ko ni ko sëñ mag bi daan waxee di wax ne kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waaye def rek boppam Aliou waxal na ko ne kenn tooñoo kenn kenn ñaawaloo jëm ci kenn ci dëgg-dëgg rek man amila saalihan fali nafsi wa man asa fa aleyha am na borom xam-xam bu mag ne ku muñ sa lori soxna yàlla fay la ci tuyaaba lu toll ne lam fayoon yonent yàlla ayub ca na toom bu ba tey jigéen bu muñee lori jëkkëram yàlla fay ko ci ba lu toll ne la yàlla fayan asiyata ma doon soxna si Firawna te alquran nettali ko asiya daa gëmoon te Firawna moom ni nga ko xamee doon woote ak yàlla tax mu daan bugal lool nag asiya dane ko sun borom net lay suratu tahrim qalat rabbi ibni li indaka baytan fil janna wa min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi alzalimin góor itam war nay muñal bu baax a baax ndax bokk na ci yonente bi wóor sàmm jigéen ji ko yàlla booleel ndax dañoo tudd turu yàlla may ko ko daganal seen diggante alquran sax dane na ngeen àndanteeg jigéen ñi ci njëkk ak su fekkee da ngeen leen a bëggut itam xëy na ngeen sib dara te fekk yàlla def ca yu bare bare maanaam man ngaa bañ a bëgg sa soxna si te fekk na yàlla ci misaal nar naa jaarale seen diggante njaboot gu baax a baax gu barkeel a barkeel wa haashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa hasa an takrahu shay'an wa yaj'al allahu fihi khayran kathira kon ne mboolem doomi aadama yi na ngay jéem di matal ak ji nga xam ne moo dox sa digganteeg ñoom lepp lo xamne mo la war rek sa diggante ak ñoom dee ko jëmu def ba mu mat ta bañ sentu ci ñoom nak ñu fay la ngay def rek ngir yalla da nga maase ci ñoom ñepp nga ñewante leen yërëm leen ko ci xamne ya ko mag nang ko yërëm niko ko ndeyam bayam baayam ko ci xamne mo la mag nang ko fonk jox ko cërum mag ko ci xamne yena masé nang ko def né sa bop bëggal ko li nga bëggal sa bop bañal ko li nga bañal sa bop ko ci gis muy moy soko mané ay ay ko soko ko ta ay xamné mëno ko waye du té rek nga yéné ko yalla may ko ak ko gis muy def lu rafet nga ñé ko te ñaan yalla dañ ko caa dimbali nee nañu Moussa alayhi salaam ba muy sàmm gàtt ya ci lu mu juboonteeg njaatigéem loolee ko juróom-ñetti at mbaa fukki at muy canok soxnaam soosee la ba yàgg-yàgg nee nañu mësta dóor benn gàtt mësta xiifal benn gàtt mësta lor benn gàtt ku narta texe rek mooy ñàkk yërmande ku nar a texe moom faaw rek day bari yërmande laa tunzau ar rahmatu illa min shaqiyin ku dul yërëm nit ñi yàlla du ko man la yarhamu nasa la yarhamuhullah ku am yërmande rek mo duggu ajana te ku ëpp loo yërëm nit ñi yow la yàlla gën a yërëm mooy la yadxulu aljannata illa rahimun wa aqrabu nnaasi min rahmatillahi arhamuhum li xalqih addis ba nee na it yàlla day dafa sàkk téeméeri yërmaane jenn ja képp la wàccee fii ci àdduna te benn xaaj boobu mu wàcce kat moo tax nit ñi ak bahima yi ak xeet wu ne di yërmante ci seen biir ba tey nee nañu yonente yàlla Yaaqoob mi bàyyi Yuusuf la tax mu bëgg Yuusuf loolu ba gëmewu ko yàlla tàqale ko moom jur bu yàgg boobu mooy daama sareen di ak jur gu ndaw a ndaw fekk yaay jaa ngi taxaw di may ma ka méttiitlu waaye moom foolewu ci dara yërëmul sax yaay ji nga xam ne moo jàkkaarloog doom ji koy rendi su borom fayee ko nag tàqale ko Yuusuf jur bu yàgg boobu ba mujj di ko jooy di ko jooy ba melan ne bët yi dafa muuru xeeti wali yu mag yooyu nga xam ne ñoom la ñu wooye al abdaal lañ leen di xàmmee rek mooy bari yërmaane bari ñewante ci mboolem julit ñëpp ñëpp du am xej ak seen nee nañu nag ku fexe ba bis bu ne nga wax allahumma arham ummata muhammad allahumma aslih ummata muhammad allahumma farrij han ummati muhammad ku farlu ci bis bu ne nga wax ko yàlla boole na ci wali yu mag yooyu muy abdaal yooyu ñu wax léegi te itam bu ñu waxee ci kenn loo xam ne lu aay la dala naqari lool lool waaye bu ñu waxee ci kenn loo xam ne lu aay la mu neex ci yow rek lañ wax neex la rek kon xamal na yow yaa fi yées mu ne it fexe ba di doxaleeg laabire sa digganteeg nit ñi laabire mooy loo xam ci lu baax loo xam ne boo leen ko waxee mën nañ caa jariñu nga wax leen ko ngir yàlla moo xam ci wàllu diine la moo xam ci wàllu adduna la waaye nag nee nañu dangay nekk ba gis ay firnde ay mandarga yu wane ne boo leen laabiree daañu nangu waaye koo xam ne yaakaaroo ci ne boo ko laabiree dana ko nangu saye boo rek bàyyi waaye laabire moom dañ koo fonk lool ba alis ba wax ne ad diinu an nasihatu diine mooy laabire àgg na sax ci boo gisee koo xam ne na muy jullee mbaa na muy jàppe mbaa na muy defee genn jaamu yàlla tegul ci yoon nga fexe rek ba laabire ko te bañ koo seetaan da ngay fexe nag ba laabire ko ci anam goo xam ne du ca mer du ko diis boo laabiree kenn nag mu naqari ko ba wax la ca mbaa mu def la ca la diis itam bul ko réccu naa man daal maa def léegi nangam ak nangam danga ma ngi koy def mu yàlla rek a taxoon santal rek te muñ te yaakaar ca pay yàlla ba tey ne ngay farlu bu baax baax ci dimbali len ci faj seeni soxla ñoom nit ñi kem na nga mané bu dee ko xiif nga fexe ba mu lekk bu dee ko rafle nga fexe ba mu sangu bu dee ko amul fu fatu nga fexe ba mu am fu fatu ci hadis bindeef yi ñoom ñëpp yàlla lañu te ku ëpp njariñ ci ñoom rek la yàlla gën a sopp kulluhum عيالullah wa ahabbu khalqihi ilayhi anfa'uhum li 'ayalih yi mata gëna moytu nak moy sagan ba sa mbokum ci tan yow di xif te nga man ci dara te defo ci dara batay nenañu yalla waxal na musa ne ko ki ma gëna sopp ci nit ñi day moy ko xamne keneen mu am ci metit bu melne ne ci bopam la jam mu ne it nit ñi na nga fexe ba rafetal sa jikko sa digganteeg ñoom képp ku gëm yàlla rek na ànd ak moom ci jikko ju rafet ak ñewante ak yermane ku wedd yàlla nag baa mu di tooñkat nag moom na jàgg ci kawam bu baax a baax ndax bokk na ci li yàlla tagge sahaba ya ashiddaa'u xalal kuffaari ruhamaa'u baynahum dañuy jàgg ci yéefar yi te bari ak yërëmanteeg dimbalante ci seen diggante ñoom julit ñi rafet ko moom dafa bari ay ngëneel lool te hadis yu bare bari ñëw ci anas mi nekkoon bëkk neegu yonante bi waxoon na ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ahsana nnaasi xuluqan muttafaqun alayhi ne yonante bi moo gënoon rafet ci ko nit ñëpp ñëpp ñëpp abdullahi mi doomi amr ibn al-has yonante bi daa waxoon ne inna min xiyaarikum ahsanakum axlaaqan muttafaqun alayhi yonent bi daa waxoon ne ñu gën a rafet jikko ci yéen rek ñoo di tànneef yi ñoo di ñu gën a baax mbaa nga ne mbaa nga ne ñu gën a rafet jikko rek daal di bokk ci tànneef yi gën a baax ba tey hadiis bi Abu Darda moo ko nettali mu يونتو بدا وخون ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق ما من شيء أثقل وإن الله يبغض الفاحشة البذيء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح البذي هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام من يرنت بدا واخون ني بو بيسبنتي لا ني تك تي بلاص تي جيفي يوي اك يو باخي دال دار دو تي غنا ديس ديكو دي رافيت ديكو دي رافيت دال دار دوكو من وات ëpp ko doole ci mboolem yi nga xam ne daañu ko teg ci balaa suuf jullit bi di peese ay jëfam ba xam jëfam ju baax ak safaan ba lu ëpp mu ne yàlla nag bëggut ku ñaaw làmmiñ ak hadis bi nga xam ne abu hurayra moo ko nettali ne suila rasulullahi sallallahu alayhi wa عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح من dañoo laajoon ku yi nga xam ne ñoo yóbbu nit àjjana maanaam yi tax a lu ci doole mu ne ragal yàlla ak rafet jikko ñu laaj ko lu ëpp ci li yóbboo sawara mu ne xanaa gémmiñ ak sawukaay maanaam nit wax ci làmmiñam mbaa lekk ci gémmiñam lu ay ba def ci sawukaayam lu ci war def yooyu yar ñoo ëpp ci yobbu sawara kon dal laaj nañ ko lan moy ëpp yóbbu nit aljana bu ne ragal yalla ak rafet ko ñu laaj ko it lan moy ëpp yóbbu nit sawara bu ne moy ci gemiñum ak sawukaayam ba tey abu hurayra ne yonent bi daa waxoon ne akmalul muminina imaanan ahsanuhum xuluqan wa xiyaarukum xiyaarukum li nisaa'ihim rawaahu tirmidi wa qaala xadiisun xasanun saxiix mu ne yonent bi daa waxoon ne ñi gën a rafet jikko rek ñoo di ñi gën a mat gëm yàlla mooy gëm ñi yàlla ñi ci gën a gëm mooy rek ñu gën rafeti jikko mu na nag yéen ku ci gën a baax ci ay soxnaam rek daldi gën ku gën a baax ci ay soxnaam dal daldi di gën ñu ne moom soxna Aïcha ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود soxna عيسى من المودة moo dégg أبجلت من mu رفيتك تكون درجة ka dàq woor dàq julli dañoo mas a wax ku baax ki alayhi salaam ne ko diw day fekk kooku jigéen la day fanaanee julli bu guddee di yendoo woor waaye nag dafa ñaaw jikko lool de day loro ay dëkkandoom mu ne leen kooku kon baaxut tey ci sawara la dañ ne ko woon fulaanatu taqumu al-laila wa tasumu nahara wa hiya sayyi'atu al-khuluq tu'zi kala la khayra fiha hiya min ahli an-nar nena ali waxan na ne yati jiku yi kum tasse ci mom lo ko ay bax bax moy ak deggu ak sant ak rafet jiko batay nenañu yu bax yep yep dajana ci yaar yi moy teggu sa digante ak yalla mi la ak rafet jikko sa digante ak bindeef yi qila majamihul xayri mahsuratun fi amrayni sidqin mahal xaaliqi wa husni khuluqin mahal khalq am nañu ne yalla boole na rafetu jikko ci nga xam moy mooy afwa wa amur bil urfi a'rid Hanil, jahilin nit ñi da ngay jappalé ay nit rek lañu lo am ci ñoom ci lu bax rek doyna bu len tek dara ci sa ka jafé xamal na rek ay nit rek lañu ko ci gis digal ko lu bax defal ko lu bax ko xamat na nga bañ ko top ci xamadem fexe yow rek ba melowoo melo bu baax jikkowoo jikko ju baax baña fayante kenn ci ak xamadeem lee mu ne maxan qibadun baatinan da njëkk ne rafetalal sa jikko sa diggante nit ñi ci zahir ta boole ci banku ñaka tal ci biir banku ñaka tal ci biir nak yar la ñu baax ñi bo rafetalee sa ci ko sa digante ak ñoom du tee nga am bàmmeelu biir boo xam ne lu ñu wërta xam ci yow man nañ ko bañ a xam bu dee nag yéefar yeeg naafiq yi moom sa ñàkk tàll ci ñoom rek mooy nañ ko waxe woon nga amul jàgg bañ a nooy dara sa digante ak ñoom sak mokk daal na nekk sa digante ak jullit ñi waaye moytu ko def sa digënté ak yéfar iya, yek ya. nafiqi nenañu nak limata moy lol lol moy melne ku rafet ci ko te ñaawle ko te moy bo tassé nit duju ko jamanté ak mom yaatal ko wan ko kanam gu tali ba nopi nak bu démé rek nga nek ci deram lu nek nga tek ko ja loolu moom nee nañu ñu njëkk ña ak naafeq gu rëy rëy dañ ko daan tuddee ndax ba ci baatum nuyoo sax asalaamaaleykum asalaamu day firi jàmm di firi mucc day mel ne boo ko nee asalaamaaleykum da nga ko ne mucc nga ci man de lu yàgg-yàgg jenn lool du bàyyi ko ci man jëm si ci yow jàmm ji ma ñaanal day ak mucc moom laay jéem lu yàgg-yàgg fa suma yéene sama loxo bi ba sama lamiñ wi dara bàyyi ko ci ci lu lor jëm si ci ciow kon nak bu ñu yonteeg moom ba ci wal ko ko ay baat mom ak la te lu mata mayu la mu ne ma siyaanati sadrin andak ñongal ab dënn manam sëb dënn nga waxe ba mu set wecc mooy soxol rek mu ci ñu nuru bañ kenn te yalla taxut mbak ëmbal kenn aw ay mata tax ma boole ci waxas dil xayri kenn ku ne rek nga yéene ko aw yiw na ko yéene sa bopp yonent bi nee na woon laa ahadun xaqiqata al imaani xata li axihi almumin mumin maa li nafsihi balaa am dëgg-dëggi gëm yàlla dafa bëggal bop julitam lam bëggal boppam nee nañu yorante bi seere loon na abdullah ibnu salaam àjjana ñu ne ko waaw lu ëpp leen nit ñi mu ne xawma ko de xanaa dund bu set wecc maanaam ëmbaluma kenn lu aay ak di moytu nag lépp lu ma amalul njariñ li mujj wax nag muy Al amana kóolute yo bëgg ku sàmm re ak kóolute ba sun borom ne inna allaha ya'murukum an al amanati ila ahliha ba hadis ba la imana liman la amanata la ci net abu hurayra dane al muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi wal mu'minu man aminahu naasu ala jimaa'ihim wa amwaalihim yàlla da leen a digal ngeen di jox kóolute ba mu mat ci seen digganteeg ni ngeen ko seqal addis ba ne ku amul kóolute rek amoo gam dëgg-dëgg jullit tam mooy ko xam ne nit ñi wóolu nañ ko ci seeni deret ak seeni alal mooy xam nañ ne lu yàgg yàgg da leen lor ci tuur seen deret mbaa seen alal ba ci seenu der namu waxe woon rek ci noonu gi bakkan noonu nit ak saytaane noonu gim noonu nit waaye bu ko noonu ga taxee dellu ci boromam kon noonu googu soppiku ne xéewal ci moom ba tayit la jep lor ju ci nit jëm ci ci yow ta nga xamne ci deug deug yalla nga war ci yalla rek xamal ne kon lor soppi ko na xéewal ndax lepp lu lay delloo ci yalla rek xéewal la ci yow parce lu li ab dog la ba day jall ci bindeef yi nga xamne ne nañu nek ab ñàkk digante nit ki ak boromam bokku na ci mëna nek am ñak sa digënté ak sa borom jëf yi ngay jëf so gisé né def nga dara rek yalla la sétan doxam la nga def ba defé né dara la lu lay jëriñ kon bu sukkandiko sa jëf té sukkandiko rek mbaxu yalla ak ngeenelam bu fekké né jëf ja mankina na nga daal di xaw a ñaaw njortu ci yàlla loolu sukkandikoo sa jëf la dañoo bëgg sax nga farlu ci jëf ngir yalla waye nak di ko baaxu yàlla ngëneelam te bañ a sukkandikoo sa jëf jëf ji ngay jëf deug la sax yalla mo wax ni ku jëf mu fay la waye yow daal sa jëf de ko jëf ci kaw ab jam la bu wara magal ab sangam rek waye bu ca Saku yalla fayale ca dara ndax yaar war na tax do ca sakku ak pay benn ba mooy doomi adama ci bop dafa manki li ci ëpp ay jëfum day bari ay rek rek niki ak ñaka selal wala bëgg aw tur wala ñaawi teggiin wala ñaka tewlu magawi yalla loolu motax sax nenañu buñ jullee ba salmal ñu digal ñu wax astaghfirullah mba dal anam buñ ko mën di waxe rek buñ jullee ba salmal mu jéggulu suñu borom ñaaral ba moy jëf jë donte donte sax melon na nam wara mel ci dëgg-dëgg yow jëfoo ko ko jëf dañu la koy askan rek japp ne am nga cak fagu way ci dëgg-dëgg jëf ji yalla yalla la may kàttan ga ak xel ma ak teewul ga ba noppi itam jëmale sab xol ci def loolee kon da nga war a sant rek waaye waroo caa séentu nag ak tey mbaa dara jëf moom nee na balaa mat da nga caa boole ak dëggu akuk sellal te yàlla rek tax kon nag boo jëf da nga wax ne man day aw ma pexe aw ma kàttan yàlla moo am pexe moo am kàttan lu ko soob rek am lu ko soobul du am lu ma baaxee rek ci jëf ji ak mbaaxama waaye man aw ma menn pexe aw ma gen kàttan gaa yi yàlla yi maase nañ ci ne ku wax ne man day sopp naa yàlla ba noppi nag booy jëf di bëgg yàlla fay la ci dara dara ku mel noonu nee nañu ci dëgg-dëgg day wax rek waaye soppul yàlla ku sopp yàlla dëgg-dëgg day xam ne rek yàlla buur la boo xam ne yelloo na ku ko jëfal muy ko jëfal rek xam ne yelloo na ko waaye du ca sàkku genn nag fexeel ba jëpp jëf jooy jëf rek nga ànd caag yéene ju sell ànd caagug dëggu dëggu nag mooy gannaaw ba nga sellalee itam nga fàtte sa jëf ak sa sellal mel na yow daal jëfoo te it te boo seetloo dëgg-dëgg ci biir rek mooy jëfoo yàq yàllaa jëf bu noppi nag baaxe la feeñale jëfam jooja ci yow kon na ngaa war a sant rek baatub nag macha allahu la quwata illa billah baat bu mata jàpp la nee nañu Malik daana wax ne Malik daana wax ne kuy dugg ci këram na wax macha allahu la quwwata illa billah ku ñuy wax ibnu arabi nee na ba tey booy dugg jàkk waxal macha allahu la quwwata illa billah nee nañu Moussa dane saa lu tax nga di ma jox lu ëpp li ma jëf mu ne ko xanaa li ngay bari la wax ما شاء الله لا قوة إلا بالله أمنا حديث أنس بو خمني أبو يعلى أندنكو دفكو مرفوع مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت وكان يتأول هذه الآية ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله من أبجام لكي يعلم من دخيولي moo xam moo xam day alal moo xam day doom su waxee rek masha allahu la quwata illa billahi du ca gis dara lu koy naqari lu may rek li mënta ñàkk te mooy war a dee dee hadis boobu nee nañu yërut li gën a wóor daal kenn ci gaa yu baax jiitoon rek moo wax ne man am من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله جمنا لا قوة إلا بالله جمم يرنجي حديث أبو هريرة منه yonte bi moo nekkoon ala adulluka ala kansin min kunuusil لا لا قوة إلا بالله يونس أختي صحيح تلج أبو موسى ولين ينتج موكو خنكو ألا أدلك على كنس من كنوس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله بتي قال أبو هريرة قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أدلك على كنس من كنوز الجنة تحت العرش قال قلت نعم فداك أبي وأمي قال أن تقول لا قوة إلا بالله نينا الشاذلي دعوة خوني سوى gisee ci sa مو bopp bir la moo xam yu bitti la loo xam ne da ko caa rafetlu te bëgg mu taxaw yow waxal rek macha allahu la quwwata illa billah ku ñu wax jaafar nee na woon képp koo xam ne am na lu xolam sedd ci ay mbiram te bëgg loolee bañ a tàggoog moom na wax rek macha allahu la quwwata illa billah ba tey assaadili nee na gaa yi xadra ba maanaam gaa yi yàlla yi seen zikar mooy alhamdulillah astaghfirullah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim tatimmatun li ab mottali la ibnu xataayillahi nee na bu fekkee ne yow boo dee jëf bu jëf ji xawee amuk manki xaw a yamaay rek sa yaakaar ci yàlla daal di ko xamal ne kon yaa ngi sukkandikoo sa jëf bu fekkee ne boo jëfee jëf ji tandu ci sa xam-xam ak sa gis-gis nga am yaakaar ci yàlla bu jëf ji manqué nag ñàkk tandu sa yaakaar wàññiku li muy tekki mooy sa jëf nga sukkandikoo sukkandikoo baaxu yàlla ya ak yërmandeem jëf ji saa yoo xam ne bu sa jëf matee ci zahir nga rafet njort ci yalla bu amee manki ba rek rek sa yaakaar wàññiku xamal ne kon yaangi sukkandiko sa jëf sukkandiko to baaxum yalla lool nak bu la yakal ngay jëm faaw jëf ji di mat nu gëna maté lo xam de ci rek rek nga jëm bu ëllëgé mu bañ caa am waaye kem sa kàttan ba tuté wu rek rek ba am nak waaw kay boba bu la té rafet njort ci yalla yaakaar ko rek xamne mom yërmande moo fi nekk ku mbaaxam rek jëf ji moom du ko jariñ dara la da ko soob rek mu santaane lee aaye lee waaye bu ñëpp maase woon ci def lam santaane du ko yokk du ko wàññi bu ñëpp woon ci def lam aaye itam du ko yokk du ko wàññi ba tey nee na koo xam ni moom bu gisee ci boppam ak dëddu àdduna ak amuk sàmm ak i topp yàlla yi bay daa jàpp ne moom mucc na ba noppi ah loolu kon dafa sukkandikoo dëddu gaag sàmm gaag topp yàlla ya kon sukkandikootul yërmande yàlla ak mbaaxam ndaxam sax ak dëddu ak sàmm ak ay top mat nay xir ak wut waaye bu ko amee nag na sant yàlla te ñaan yàlla mu yokk rek te bañ a ci ne man mucc naa ndax li lañ soxla te am naa ko loolu bu ko defee rek day mel ne kon jëfam la sukkandikoo ndax ak mujj rek moo am solo te xamawul ak mujjam la yàlla dogal rek moom saya boo nangu ko ci xol bu tàll li ci am loo cay amu tiis ci sa xol mbaaw naqara maanaam daal jël jëm moom li yàlla bëgg nga gar ci sa bakkan kem sa kàttan li yàlla bañ nga di ko daw kem sa kàttan gannaaw ba nag lu mu dogal rek nga xam ne loolaa ko neex loola la dogal lam dogal rek nga mën a gis nag moom sa jëf ñàkk mat mbaa nga jàdd ba def loo warta def bu mu tax nga naagu yërmande boo demee ba sa jëf yokku sa jëf sell itam bu mu tax nga daal di wóol ne man de mucc naa ba noppi ndax jëf lay sàkku te jëf naa am naa jëf ju baax déedéet moom daal foo toll da ngay boole ragal ak yaakaar def ko yaar laaf yoo xam ne moom ngay naawe yow aji gëm ji te kenn bañ caa samoroom sa boole ragal mbugalum yàlla ak yaakaaru yërmandeem ragal gi day tax jaam bi sori ak moy yaakaar gi day tax jaam bi bari xeeti topp yàlla yi teewul nag bu jaam bi demee ba nga xamee ne yaakaar na ne faatu soreetul jàpp na daal mu génn àdduna la gën mooy yaakaaram ëpp ak ragalam ndax dagam yàlla ci boppam daa wax ne man day sama jaam lamu jort ci man rek ca laa koy fekk bu jortee ci man aw yiw ak yermande bu dikkee fekk fi man yiw ak yermande bu jortee na it aw ay ak mbugal lay fekk fi man bu dikkee it fekk fi aw ay ak mbugal kon nag kon nag jaam bi bu demee ba defee ne daal ak génnam àdduna soreetut la gën mooy yaakaaram rafet njortam ci yàlla nga ëpp doole ak ragalam ak topp yàlla nee na baax na lool waaye mën naa tax jaam bi naw boppam yëg boppam te yàlla nag lim gën a bañ ci jaamam mooy ku gis boppam yëg boppam naw dara ci boppam ku naw jëfam rek yàlla seetaan la ak sa jëf nooy def mu ne nag ab jaam ak topp yàlla mën na ko yóbbu ci naw boppam mu jaare ca daal di alku ndax yàlla day jëflanteeg moom ci maandoom rek di ko seetaan di ko seetaan ak loolee muy naw ci boppam ba xam nu muy def ak moom ak mooy yàlla nee na baaxut nag ab jaam mën na caa jaare ba tuub tuub ku sell du dellooti ci ag mooy sax rek ci jub ak rafetal kon nag gis nga ne ak mooy yàlla mën naa yóbbu nit ci texe yóbbu ko ci ngërëmul yàlla ndax de def ak mooy goo xam ne ca lay jaare ci tiitaange loo xam ne da koy tax a tuub tuub gu sell sax ci lu baax loo xam lu mu ca def xeeb ko su xelam demee ci mooy yàlla gi rek du nawati boppam mukk mukk du nawati dara dara lu def bu ko defee nag muy sori lépp lu bon di def lépp lu baax te du ko gis te lay jaara rek yàlla nangul ko boole ko ci jaamu ñamu gërëm nga xam ne kon gis nga ak topp dana yóbbu ab jaam ci alkande ak mooy itam dana yóbbu ab jaam ci ak defaru ak texe teeg ëllëg yàlla ni muy defee dafa xereñ lool te jan lool daanaka mëneesuta seetantal dëgg-dëgg ba xam definu yàlla ndax ne day fekk bàkkaar bu lëndëm këriis mel ne guddi mu daal cee dugal njëgalam ku leer nañ mel ne bëccëg te xam nga ne leeru bëccëg moom bu ñëwee daal di dàq lëndëmu guddi kon ba tey njëgalu yàlla bu ñëwee rek dàq bàkkaar ya bata yalla dina fekk ay top yalla yu bare bari leer nañ mel ne yalla duggal ci ak guddigu gu lëndum lëndum te moy rek koka naw bopam gis la mu def ko defé loola dal di yaq la mu defoon ak la muy bari bari kon dal yalla ku mata ragal la te diko ko te baña nagu mukk mukk ena na saa yoo yalla yàlla ci dinem ji na nga ca dëggu jàpp ca bu baax a baax ndax kat lépp loo tàggool mën nga am lu ko wecci ba mu des yàlla yàlla moom boo ko xasee ñàkk leen leen lu ko mën a wecci del jéem a góorgóorlu te itam di jéem a jàjj sa bopp deltu gannaaw bàyyi lépp loo xam ne rek danga caa nekkoon ci xeeti caay-caay wala ci gudd ay mebet defee ne yow da ngay gudd fan te am lu amagut mi ngi ñew ñu dik rek nga dajale do nangu dara genn ñak sawar lool ci top yalla yi japp ne rek sëg dum des na da nga mëna tuut bala nga faatu dabu la la rawon yu mel yu del seetlu sa bop lo ci xam ci sa bop rek nga gaaw ko te delu ci yoon wax fo tollu del sam say cieur bañ cey jege dara lo xamné ne lu yalla ayé la fo tollu del jëm a sa sikki bop taxaw mu ci fajj ko di bari na tu delu ci sa borom nala la sa sikkus bop doy nga fàtte sikkus sa xel ba bisu bu ngay doliku xam lu baax te diko def di doliku xam safaan ba te di ko moytoo ko sori ngir yàlla xam-xam bu am njariñ mooy rek xam lu baax te di ko def ngir yàlla ak xam safaan ba muy lu baaxut te di ko moytu ngir yàlla yow yaar nag moom foo toll bis bu ne dee ci tali yokku nee na taalibe dëgg-dëgg moom du bëgg lu may ngërëmul yàlla lu muy bëgg mbaa lu muy yóotu ngërëmul yàlla rek la cay seet moo tax mu koy yóotoo ko dëgg ko wut nga xam ne way woowu kon tënk na ak taalibe ak taalibe mooy ki wax ne ab taalibe la bañ a bëgg lu may ngërëmul yàlla si moxtaar ak kunti nee na ku nekk ci àdduna bëgg fi noflaay du ko jural lu may bu demee àllaaxira tek fa gàcce aduna ab tol la bu yalla andi jam ñi ngir ñu sonn fi bu buñ démé ci kërug dëgg ga mëna noppulu kon nak ku nekk ci aduna bëgg a loolu day gàcce rek la koy andil bu taxawee bis penc nit ñi lay lay wax la ca tagg xëy na ak ñàkk xam la di wax ne kii daal mosuñoo gis ku mel ne moom kii daal moo gën a yeewu ñëpp kii daal nangam ak nangam yooyu yëpp nee na moom la nax nga defee ne nañ koy waxee noonu la amee. suturaal gi la yàlla suturaal ba xëy na sag bon kenn xamu ko ñu bari xamuñu ko bu la loolu ndax ba nga defee ne da nga amul sikk da nga amatu mbon déedéet yàlla rek moo la suturaal lool nde xëy na nit ñi baax ji wax ci yow ci lu baax ak di la màggal. mu tax nga defee ne lu baax li ñu wax noonu la amee mbaa nga defee ne ni lay màggale da nga koo yeeyoo nit ñi di bàyyi ko fu ne di la siyaare si di sàkku ci yow barke di sàkku ci yow xam-xam loolu lépp nee na ba la nax ba nga defee ne dangaa doon dara ndax ñuy ñëw xamuñu sikki nekk ci yow la ca làqu la ca fés la yaa xam leen li sa xam ko ndegam da nga ko umpale yow waaye nit ñi moom loola xamuñu ko kon nag bàyyi ko gi ñu bàyyi ko fu ne la siyaaree ka barkeeloo xam-xam ci yow moom la ndax ba nga defee ne lu ko jar daa nekk ci yow. da ko wax rek ngir laabire ndax am na yenn jaami yàlla yoo xam ne yàlla moo leen def ñuy buntu yërmandeem. kon ñi ñëw ci ñoom di sàkku xam-xam ak barkeeloo ko siyaare ñëw nañ ci buntu yàlla waaye dañoo bëgg laa biire ka nga xam ne yàlla booliwu ko ca ñooña mu xam ne yàlla booliwu ko ca ñëw ñëw ci moom di sàkku xam-xam ak barkeeloo siyaare mu xam ne rek dogal ba waaye lañu yaakaar ci moom nekkul ci moom mu bañ a nax boppam loola bañ koo yóbbaale mu ne itam dëgg la yàlla ku tedd la ku lewet la waaye nag am na itam melaw intiqaam fayantoo ni yàlla doone karim doone ni xalim noonu la doone muntaqim doone na jabbaar doone na asis muy wéy ni nga xam ne moom la lewete noonu la ame waxtaan lool lool ndax loo seen jëfuma loo seen rek jëfuma del bàyyi xel ci ne yàlla mi ngi lay xool doonte yow gisoo ko xam sa lépp dara ump ko ci yow loolu nag nga di ko bàyyi xel di ko di moytu lépp loo xam ne tàmmu ko ci yow as gor moom faaw daa war am kersa waaye ñàkk kersa moom ku tekkiwul dara rek moo koy def sukkandikoo mbaaxam ak ngëneelam bañ a sukkandikoo ngay jëf li ngay jëf moom da ngay jàpp rek ne moo la ko sant nga di ci góorgóorlu waaye doo ci sukkandiku da ngay sukkandikoo ci mbaaxam ak ngëneelam. foo toll na ngay am am yitte jëm ci sa boroom te ba am yitte ju kawe kawe kawe jëm ci sa boroom bul geesu lu sa boroom wutal rek yàlla boo ko amee. ak lépp del moytu daal lépp luy tee nga mën nekk sa boroom sa yitte foo toll dee ko ci yàlla weesale ko mbindeef yi ndax sax mbindeef yi yàlla leen bind boole leen ci kaw suuf kenn ku ne di aajowoo jëm ci sa moroom waaye nag fexeel ba koo ci jëflenteel rek nga bàyyi xel yàlla mi nga xam ne moo leen boole te it ci dëgg-dëgg mooy dafa ko dindi loo jëf leen teg nit rek seet ca yàlla la nga ci bëgg bu ci amee nga xam ne yàlla nga sant yàlla sant jëmm joojee la nga ci bëgg bu ci amut itam nga sant yàlla te bañ a xarab mbindeef moomee xam ne rek yàllaa ko dogalut nee na xool day gis li nga xam ne moom la bët di gisee mooy xool diggante asamaan ak suuf xool nag mooy xool di tàmbale asamaan si gën a jege àdduna jëm ca kaw maanaam gis-gisu bët mooy xool nguuru yàlla gu feeñ gi gis-gisu xol mooy xool nguuru yàlla gu nëbbu gi mu ne nag ñi xam ne moom la gisul bët di fattoo ba tey koo mën a xool bu baax noonu la gis-gisu xol di fattoo